nee na nee na li ñoo tudde coobare coobare nee na lu doomu soxna lu doomu daara daan sonne jaamu yàlla pour bëgg a dugg àjjana ne daan naa ko def lu dul bi ma demee ba gis ni jaamu yàlla du dugal nit àjjana coobare moo ko ciy dugal seetal loolu xam nga loolu jox yàlla àqam la nee na lu nit daan jaamu pour bëgg a dem aljanna ci doomu daara daan naa ko def lu dul bi ma dajeek coobare ma xam xel li ndeke ni jaamu yàlla du yóbbu nit aljanna coobare moo ko ci yóbbu te loolu yomb na dégg parce que yàlla moom noonu la mel noonu moom nguuram nëbbu ko nëbbu ko nëbbu ko mukk bu àdduna amoon téeméeri milliards ciy nguurit mu def leen fas ndax lool loolu la bëgg moo ko neex na ñépp xam ni moo leen man lu ñu bare bare mu écraser leen ku mu ci écrasé wul tey bu ëllëgee mu écrasé la loolu moo ko neex te daf koy def waaw looloo tax nag kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw looloo tax kuy làqu ci gannaawam ngay làqu waaw keneen ko làqu ci gannaawam mu boole la ak moom écrasé leen dara nga ci mënul